kenn xamul lan la kenn xamul lan la ba pare woote gi yépp nag duñ la wax lu am fayda billaahi loo xam ne mun na xaar duñ la wax dara lu am fayda dara lu duñ la ko wax mun nañ la fekk lalu hôpital nga nekk entre la vie et la mort ça va yaa ngi yaa ngi yaa ngi nekk entre la vie et la mort yaa ngi tane yow tam gën ko dof nag <laughs> waaw maa ngi tane mu soo gis ku tëdd ci lal hôpital nga ko yaa ngi tane mu ne la noo tane wu ma a <laughs> léegi la moo tax sénégalais nekk ci dund ak dee nit ki la yaa ngi tane tane woo nee woo ko tane wu ma dañ lay fekk ci lalu hôpital ñu jam la partout de perfusions nga nekk ci diggante dund ak dee sa yaay ñëw wala sa kenn sa mbokk <laughs> kii nga xam mbay tane nga même maa ngi tane sax nga wax ak effort Oh, maa ngi tane kay ah maa ngi tane nu muy yow xam nga ne tanewul bu lay wax ne maa ngi tane sax da koy waxee ak ak avec de la peine <laughs> maa ngi tane nga ne ko yaa ngi tane kon ni Sénégal daal ku dem ku fekk nit ci hôpital daal yaa ngi tane nga koy laaj loolu rek nga ko mën a laaj loolu rek nga ko mën a laaj quoi yow yow il faut sénégalais bu la fekk hôpital yaa ngi tane la lay laaj yaa ngi tane te sénégalais bi tamit rus naa wax ne noo tanewuma boo ko waxoon tey ñii ñu mbamb la boo ko waxoon tey ñu mbamb la mais <laughs> y' <laughs> problème balaa maa dee nag ngay critiquer benn affaire na gars yi waaye saa xanaa yow doo sénégalais <laughs> sénégalais daal moom mooy nit bu baaxul bi daal sénégalais daal moom mooy loo ko teg mu war a tegoo loo ko teg mu war a tegoo dama am sama benn commune bu ma ñëw ci at nii quoi di ma leb maa ma ne ko nañ dem ci banque ba ma récupérer xaalis quoi. déjà ñi dem ci guichet automatique bi doxut fii bu guichet automatique doxut machine bi moo lay wax ni doxut déjà wala ñu tafal la benn dara bu kayit bu lay won ni doxut mu kurti kurti machine bi doxut ma dem ci biir fekk fa gel bi dox ma ñëw waa jaajëf ça va neen def ça va dama a récupérer benn xaalis quoi ah <laughs> waaw ñaata la ma non deux cent mille <laughs> amut ma ne connexion lan noonu connexion yi amut ma ne ko ban connexion c'est comprendre mu connexion internet nga amul bu dee amoo connexion internet ma partagé la. sëñ connexion amul de ma ne ko non dama bu dee amoo connexion ma partagé la partagé nga fi nga am connexion <laughs> wala wala du loolu non connexion rek amul ma ne ci woo man ne ma doon fokk dëkk bi mooy dëkk doome xaj <laughs> yow xanaa doo Sénégalais <laughs> yow xanaa doo Sénégalais yow yaay doome xaj. ma wóolu la dénk la sama xaalis ngay banque ma soxla ko urgence nga ne ma internet amul ma dem jéggi sa ba mënuma ko récupérer doxul nga war maa mastaw nga nga may xas nga war maa mastaw ma nekk ci urgence bu ma la dénkee kay joxuma ko nit nekk ci urgence mooy moo ko soxlaa moo ko war a jox joxoo ma ko ba boole ci nag <laughs> yow xanaa da sëñ bi xanaa da sénégalais daal moom mooy doomeer am daal moom mooy lu metti dañ ko ko war a teg naqar dañ ko war a teg bu soxlaa du du ci jot sénégalais daal moom mooy maanaam malheur mooy ku malheureux daal hein mais c'est incroyable c'est incroyable non euh, réew moomu non dinañ ko defar nag gars yi ne bu ne désespérez pas billahi dañ koy defar non yéen ngeen foog ni bakkan ni ñu tegee nii suñu bakkan yi nii di ko jaayante boobu ba léegi di résister ngeen foog ne ñun dañoo jóg barke alxuraan Macky Sall dinañ defar réew mi billahi dinañ defar réew mi wallahi dinañ defar réew ba bañu ci bàyyi suñu bakkan ndax ay 65 ñoo ci dee am ñu ci gaañu Macky Sall ñun réew mi dañ koy defar bu dee da ngay suñu kaw mbaa ñu jaar sa kaw mais dañ koy defar réew mi dañ koy defar par la force réew mi dina mel nii mbaa xoolal ñëpp dee réew mi dina mel nii mbaa ñëpp faatu réew mi dina mel nii xoolal lii réew mi dina am lii lii yii réew mi dina am lii ñuy gis nii réew mi lii lépp dina ko am lii ngi nu mel ni réew mi dina ko am par la force wallahi Macky booy réew mi dina am lii réew mi da koy am réew mi day am parking yu mel nii day am espace vert réew mi da koy am ñoo la waatal ci yàlla réew mi da koy am di nga ko jëriñoo di nga ko jëriñoo di nga jëfandikoo mais réew mi dañ koy defar par aw par bee loolu moom boo yaboo nga takk ko téere caaxaanuñ de nekkuñu ci caaxaan nekkuñu ci kaf di foo di ree dañ koy defar réew mi dañ koy defar réew mi dañ koy defar ba mu ne cocc jàpp suñu frères yi sàcc leen nokk ci kaso yi di leen liggéeyloo réew mi dañ koy defar réew mi amul ay jël rakk jël mag ay kuñ fi fekk nga jàpp ab jigéen tëddee ko ba jox ko place dinañ la jàpp nokk la ci kaso bi tëddee sa yaay tëddee say sœur tëddee say doom ba bu ëllëgee boo koo joxati place bala nga ko jox place ba du koy mérito dégg ngeen buñ ko defee bés boo jëlee ab jigéen bu mérito wu la place nga tëddee ko ba jox ko place ba promotion canapé ñu yëg ko def sañu enquête jàpp ne yow da tëddee jigéen ci dinañ la topp yow tëddee sa jabar duñ tëddee sa yaasa tëddee sa jabar tëddee say doom jigéen ba ñu furi ñu tëj sa maam dàq sa maam boo ëllëgee kenn dootul jëlati doomu jàmbur di ko tëddee di ko jox suñu place wala suñu xaalis mu koy encaissé dinañ ko doxal ci nu mu waree ni mu waree dinañ ko doxal ci ni mu waree laa la wax réew mi dina defaru par A ou par B réew mi depuis 1960 ñu ne day continuer système boobu loolu ku leen ko wax da leen di ndax loolu du dëkk waaw loolu du dëgg de dinañ defar réew mi dinañ ko defar ba mu ne cocc billaahi di leen jox tali yi ngeen am nii tali yi fi nekk nii di ngeen am yu mel ni lii di ngeen am lu mel ni di ko am de bu ma leen ko waxee rek gëm leen ko di ngeen ko am de xanaa ñu dee te bu ñu dee am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ñu gën a yore suñu idéologie yi nii idéologie de développement ni xoolal dañu koy defar réew mi dañ koy defar réew mi dinañ ko defar ba mu ne coccu bu soobee yàlla kon bu leen tiit bu leen ragal bu leen tiit bu leen ragal voilà kon gars yi maa leen di béggee bu wér ah. am na ko ma naan waa même Mollah am na xaw ma lan ay am na ñu la fi bëgg xaw ma ñu la fi doxaan ak yooyu mais yéen man wax naa leen li ma leen di wax nee naa leen Mollah nii dama génn di doxantu de gars yi dama génn di doxantu nu ngeen ma gis nii saag bi nag saak bi dafa xam nga rek dafa sama frère la ko saag bi sama gaayen la saak bi laa gaayen saak bi c'est le plus moom moo nekk koo xam ni xam nii nit ñii ñii dañuy génn ànd ak ay xaj ñii ànd ak ay muus ñii ànd ak golo ku nekk fi mooy sa sa sa sa partenaire man saak bi sama partenaire de guerre la saak bi dafa ànd ak man fépp saak bi bu ma nee Corée du Sud da koy raconté saak bi dafa ànd ak man fépp dafa ànd ak man Corée ànd ak man Japon ànd ak man Singapour ànd ak man France ànd ak man Sénégal ànd ak man Hollande fu ne dafa ànd ak man ba ku ma xàmmee fii ci dëkk yi xàmmee nga maak saak bi donc saak bi gor la garmi la moo tax may ànd ak moom même bu ma ci deful dara sax damay ànd ak moom dama saa yu may génn nag <laughs> am na ko kaay ñii yor seen xaj ma yor sama saak lonk na ko ay ci dem ako gore dama koy boot rek du jooy du jooytu du mettitlu te lu mu ko sëf mu jël lu mu ko sëf dama koy duy ba mu fees mu ne ma ay ca yoraatoo lu des ma ne ko non baax na baax na donc maa ngi koy sant di ko gërëm sama saak bi sant naa ko gërëm naa ko